mbokk yi jàkkaarloog ñun fu ci waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu di wax asalaamaaleykum wa barakaatu di la ziyaara waaye di la jox sa wàccuwaay di amaat mbégte ak kontante di ànd ak jotaay télévision Madiyana TV ci émission bi ñuy tuddee dénkaane koor di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lu ñu fiy gaaral mun ne mu bari yàlla nañu yàlla defal jàppandal ñu jële ko ak suñuy xel waaye nangoo ko ak suñuy xol ba am ci ridallahi muy ngërmal yàlla yàlla na ko yàlla defal mbokk yi bu loolu paasee suñu émission tey dafa mel ni dañ koy sof ci bi ñu defoon ci wàllu kii sàkku ngërmal mbindeef yi ba ci ànd ak sànjum aji bind ji bu ñu xamee loolu kon war na caa tofal ban yoon lañuy jaar pour mën a am ngërëmal yàlla subhanahu wa kon loolu mooy suñu waxtaan tey yoon wi ñuy jaar pour mën a fàggu yërëmal aji bind ji muy yàlla subhanahu wa taala ngërëmam ah comme ko daan defee saa su nekk dañu bëgg lu ñuy jël rek ñu orientation boo xam ni dafay jóge ci mbindum sëñ bi bu ko defee kon dafa mel ni suñu waxtaan yi jiitu amoon ca benn bayte boo xam ni genn wàll ga dafa concerné woon lu lenn la waaye am na ci genn wàll goo xam ni tey dañ koy soxla mooy fi sëñ bi di wax xultu faman yurid ridar rahmaani fal yusbitan tadabbural quraan kon kooku mel ni wane na aw yoon wu nit war a jaar pour fàggu ngërëmal suñu borom ndax daf ni xultu maa ngi wax man Cheikh Ahmed Bamba fa man yurit fa man képp koo xam ni yorit bëgg naa am ridar rahmaani ngërëmal aji bind ji muy yàlla subhanahu wa taala ah ñu ne ko loolu de bëgg nañ ko fan la ñuy jaar mu ne fal yusbitan tadabbural quraani na sax dàkk ci settantal alquranul karim waaw kon suñ bi wan nañu wenn yoon woo xam ni nee na bu ñu jaaree di settantal alquran danañ ca ame yoon wu ñuy jaar ba am ngërëmal suñu borom subhanahu wa kooku loolu la leneen li aussi ci yoon wi ñuy jaar pour am ngërëmal suñu borom subhanahu soo demee ci xasidam bi mu def ci xul wallahu ahad li muy waaj wax foofu fan koy fan koy jële buñ ci bëggee introduction ndax xul wallahu ahad tawxid lay jàngale moo tax mu tàmbalee ko ci xawliya laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilahu man dem maa ngi wax man Cheikh Ahmad Bamba wax bu wér a wér wér ne li wér wóor mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu te mu yooyoo jaamu ku dul yàlla subhanahu wa waaye di saxali di dëggal ni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla yónni foofu nag ci la dugge ci yoon wi ñuy jaar pour am ngërëmal yàlla lu mu ca teg wajjahtu wajhiya lahu والنية وجهت وجهي له للنية والنية إرضاءه وهو عجل منيتي الله أكبر سمبنانا وجهت جملنا أريانتنا جبلنا وجهي سمجم جب te jëm ji day ànd ak jëm ji yóbbaale xalaat yi yóbbaale initiative yi yóbbaale lépp nee na jébbal naa ko yàlla subhanahu wa taala te nag wa niyat yi sama yéene ci jébbal gi ma jébbal sama borom yàlla yéene gi ma ci yéen mooy irdaahu mooy am ngërëmam irdaahu am ngërëmam te woowu moom am ngërëm suñu borom ajallu mun yati mooy li gën a rëy li gën a màgg ci sama mébét waaw maanaam sama dund àdduna li ci gën a rëy ci mébét bu mu am mooy maam nga am sama ngërëmal borom kon li ñu ciy dégg kon mooy bokk na ci yoon wi ñuy jaar fu pour fàggu ngërëmal yàlla mooy suñu lépp ñu jox ko suñu borom subhaanahu wa ginnaaw bu njëkk bi fu fa la ñaane ne asaluhu jalla bi jaahil maaxi asaluhu jalla bi jaahil maaxi maanaam asaluhu maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa jalla mi nga xamante ni moo kawe te màgg bi jaahil maaxi ci darajey Seydina Muhammad parce que maaxi tur la ci turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo tax gis nga baytam bële muy waxee wàllu rambu ëllëg baatu maaxi la fa jëfandikoo foofu naan rajaau jannatin bila taati fi sunnatil maaxi xururun yaati neen rajaau jannaat ni kii yaakaar dugg ay àjjana ëllëg bila taati te teg ci topp yàlla sëñ Tuubaa neen loolu de fii sunnatil maaxi ci sunna Seydina Muhammad ku la ko wax xururun yaati ay warla yu ñëw rek waaye loolu mënu am رجاء الجنات بلا تاتي في سنة الماحي متى في من أسأله جل بجاه الماحي أسأله ما نكون نيان مم يلا جل مي خمني مو كوي بجاه الماحي تي درجة سيدنا محمد كونية من نك من سنة توبا زاردا نك بروم غرم لولا كون نيان وزا فلاح أكبر متخي كون نك بوكي مبير مانغوب kon wone ne kon sëñ bi wone na xal na aw yoon woo xam ni ku bëgg am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala foofu muy wuti buñ koy tëj nag dañ ko tëj ak alxuraan saar yi ci saar yu gàtt yi surtout bañi na foofu it moo la won lii sëñ bi ndëxëñ yàlla wax inna allazina amanu wa amilu salihat ñi nga xamante ni gëm nañ yàlla di jëf-jëf bu baax ulaayika hum xayrul bariya ñooñ ñi gën ci xeet wi jazaahum seenu pay mi ngi seen borom jannaatu adnin àjjanay àddina woon tajri min tahtil ay doxe fay daw xaalidiina fiiha fa la ñooñu kat radiya gis nga ko de radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen war a du anhum ñoom it gërëm nañ suñu borom mu ne nag zalika loolu nag liman xashiya rabba kon nag loolu alxuraan wax te mu yaatu lool imaan amal lépp sëñ bi tënk na ko ci lii bu ko kon ci gàttal loolu it aw yoon la mooy gëm yàlla topp ci yoon wi bokk na ci topp muhaajiroon ak ansaar jiitu gën jiitu woon ci mbaax yàlla ne na képp ku leen roy seen mbaax ga da am ridallahi yàlla na ko yàlla defal donc daal ci tënk lii mooy li nga xamante ni mooy suñu yoon wi ñu war a jaar pour am ngërëmal suñu boroom ah di ci dénk suñu bopp di ci dénk ndaw yi surtout waaye di ci dénk ñi nga xam ni dañoo yore ay responsabilité nañ jël li fàggu ko ndax boo amee ngërëmal suñu borom rek am ngërëmal nit ñi waaw kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp bu ko defee kon ci jeexital bi ñu ngi delluwaat ci fanikoor gu sell gi di ñaanaat borom bi di toroxlu ci moom di wàcce suñu bopp di summi suñu mbubum rëy di summi suñu mbubum daraja di summi suñu bu mu am am ak xam-xam beeg man-man bi di sukk ci kanamu yàlla di kon suñu mokk di kon ñaan moom borom bi ginnaaw bi ñu wonee kantanam ba mat sëkk ci àdduna bi yàlla nañu yàlla won yërmandeem ba ñu yi mu jégal ñu dindil lii nga xamante ni mooy feebaru euh, coronavirus bi fi nekk dindi ko ci àdduna bi yëpp yàlla na ko yàlla def di sàkku na ñëpp di ñaan ndax foofu lañ toll mënuñoo jeexal nag te delluwaatuñ di gërëm wax dëgg yàlla télévision Madiyana TV ci yiw gi ñu utal ci koor gi di ñu fàggul yiw te fàggul yiw mooy kaay nga waxal nit ñi ci loo xam ni lu leen di tax loo am seen ngërëm borom la kon ñu leen ci sant di leen gërëm di gërëm ñi ko taxawee ah technicien bi nga xamante ni wax di yàlla ko sonn ci liggéey bi la sëñ Moussa Kare di ko gërëm di ko sant waaye ki nga xam ne lu mu sottee moom la muy bi Serigne Ndiaye di leen gërëm di sant kon mbokk yi ñu leen jox daje suba ak jàmm incha allahu ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu بسم الإله إفن الدار الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن